la médecine c'est comme la marine c'est un corps. mu nekkoon kàddu professeur Ibrahima Pierre Ndiaye ñu newoon ko lool jox ko cër ci li nga xamante ne moom la doon yëngu wàllub médecine rawatina neurologie bi nga xamante ne moo nekkoon spécialité woon démb la daal di ñàkk la kon lu toll ci juróom-ñaar fukki ak juróom-ñett ci hôpital principal professeur Ndiaye mu ngi juddoo 9 février 1942 ci diwaanub Ndar Géej foofee nga xamante ne fa la defee étude primaire am ak lycée moom Pierre Ndiaye daal di amal ay études am ci université Cheikh Anta Diop ginnaaw baccalauréat scientifique bi nga xamante ne mu ngi ko amee ci lycée Charles de Gaulle demoon na ci réew France ngir kon gën a yokk xam-xamam daal di fay nekk médecin interne daal di fay nekk interne ci hôpitaux yu université bu Paris 4 professeur Ndiaye daal di am agrégation ci atum 1979 ñeel médecine loolu moo ko may mu nekk africain francophone bu njëkk bi nga xamante ne nekk na agrégé en neurologie ci atum 1985 nag ci la daal di nekk professeur titulaire de la chaire de neurologie ci université Cheikh Anta nag ci fukki at ak ñaar ci la nekk censeur bu faculté médecine pharmacie ak odontologie ba mu demee à la retraite nag professeur Ibrahima Pierre Ndiaye nekkoon vice-président bu académie nationale des sciences techniques du Sénégal di ANSTS bokkoon tamit ci société yu bëri yi nga xamante ne ay kàngam ñoo cay nekk yoroon na tamit ay distinction muy raaye yu bëri yi nga xamante ne dañ ko ko jagleloon bokk na ci palme académique bu conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur di CAMES waaye tamit légion d'honneur française ak yeneen dëddu àdduna professeur Pierre Ndiaye nag mu nekk ab tiis dëgg monde scientifique bu Sénégal ak intellectuel yi daanaka ñoom ñëpp ñàkk